Bonjour Mesdames, Messieurs. Communiqué numéro 89 sur l'évolution de la situation de la pandémie euh, liée au Covid-19 dans le pays. Ce vendredi 29 mai 2020, le ministère de la Santé et de sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1236 tests réalisés, 81 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,5%. Les cas positifs sont répartis par nos services, 2 cas importés, 13 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Liberté 6 1, Golfe Sud 1, Keur Massar 1, Mariste 1, Anne 1, Parcelles Assainies 1, Malika 2, Ouakam 1, Yeumbeul à Dakar. Touba 3. 52 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 20 cas sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 3429 cas ont été déclarés positifs, dont 1738 guéris, 41 décès et donc 1649 sous traitement. le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. asalaamaaleykum askan wi ñu ngi leen di jottali lim bi ñu am tey ci mbas mi ñuy wax Covid fii ci Sénégal ci bésu ajuma tey bi nga xamante ne moo toll si ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci mois de mai 2020. ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat yi ma nañ di bëgg a jottali ci junni ak ñaar ak fanweer ak juróom-benn yi nga xamante ne ñooy test yi nga xam ne def nañ ko ci bésu tey bii 81 moom mooy juróom-ñetti fukk ak benn dellu si nañu donc ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu juróom-benn fukk. juróom benn moom lañuy wax contact mooy yi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeykaay yi moom lañuy topp te di ko saytu am nañu ñaari cas importé mooy yi nga xamante ne ci beneen dëkk la ñu jógee ñëw fii si suñu dëkk am na ñu fukk ak ñett yi nga xamante ne moo ñuy wax transmission communautaire mooy cas communautaire ñu ngi leen di gis nag ci diwaan yi Liberté 6 am na benn Golfe Sud am na benn Kër Massar am na benn Maris am na benn Hann am na benn Parcelles Assainies am na benn Malika am na ñaar Wakaam am na benn Yëmbal am na benn ñoom ñëpp nag fii ci Ndakaaru et Touba moom am na ñett juróom fukk ak ñaar ci ñi nga xam ne feebar nañu biñ leen saytoo seen wér-gu-yaram gisatuñ ci seen yaram gisatuñ ci benn doomu jàngoro ñoom lañuy wax ne wër nañu ñaar fukki cas nag ñu ngi tëdd si bërëbu sawetaas yi ci l'hôpital yi mooy li ñuy wax service de réanimation yeneen malade yi seen yaram mu ngi ànd ak tan ci bësu tey bii bi mbas mi ñëwee Sénégal ba léegi mooy le 2 mars mooy mois de mars bi mu amee ñaari fan mu ngi leen di wax ne ñu ngi tollu ci ñetti junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ñi nga xamante ne seen yaram ànd na ak doomu jàngoro ji ci yooyu ñu ngi toll si tamit junni ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ci ñi nga xamante ne wër nañu ñeent fukk ak benn làkku nañu mooy génn nañu àddina ci bésu tey bii ci ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lalu hôpital ñu leen di continuer di leen di faj ñu ngi toll si junni ak juróom-benn téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi dolli di ñaax askan wi ñu topp digteel yi nga xamante ne bu ñu ko defee mbas mi di Covid 19 dina génn ci Sénégal ñu ngi leen di denn sant wasalaam.